soldaar yi jàpp yéesu daaj ko ci bant ba te di ko ñaawal ba nuñ ko doon defee ci seen aada ku def lu bon ñu daaj la ci bant waaye wóor na ne yéesu defuloon dara lu bon xanaa kañ di jàngale yoonu yàlla ak def lu baax te sopp yàlla di weral ñépp ñu feebar wante bañaalem yi bañ nañ ko ba dóor ko ci bant te rey nañ ko noonu la nit ñi toppoon Jéesu ba rey ko ci bant mu daldi dee ci bant ba bu mu dee ci bant ba noonu lañ ko jëlee daldi dee ci bant ba ngir suñuy bakkaar biibal gi ne sarax la bu yàlla wàccee ndax boo gimee ci yéesu ne sarax bu mot la bii dindi bàkkaar lu nit ñi maanaam diggante nit ñi ak yàlla ci deretam fay na prix bu mot sëkk ci diggante nit ñi ak yàlla maanaam sarax bu amul sikk te amul benn gàkk-gàkk bu mot sëkk la